dafa am lu ci dolliku nag moom laa bëgg wax mu jëm ci liggéey bi ginnaaw danoo fas yéene jeexal lépp jox ko sëñ bi fas yéene ko sax dakk ci liggéey bi liggéeyal ko liggéey bi moom mu ngi fii du fi jóg bu ko noppee ci lii dem ci lii bu noppee ci lii dem ci lii bu noppee ci lii dem ci lii liggéey moom mi ngi fi du fi jóg kon kon kon kon noo war a noo a noo war bu baax te bay bàyyi xel lépp waaw na waaj ba jëkk benn benn benn bañ noo jóge ci genn wet te fekku nu jekk nan taxaw ba nan jekk rek ci liggéey ak lu mën eh, eh, li ci dolli ko nag moo di moom itam loolu lépp liggéey bi xëy na moo ko indi ndax yitte liggéey bi yitte rek am solo yitte ji nga xam ne eh, def nañ ko ci liggéey bi eh, kon dafa mel ne kon soññ bu rëy boobu xam ne liggéey bi loolu ab soññ rek la kon soññ bu rëy boobu dafa mel ne eh, am na leneen lum mu indi moom laa bëgg a wax ak bokki bokki

sëriñ bi rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ñu nekk ci bopp yi ñooñu ji ñoo ci jiitu ñi ca dolliku mboolem mboolem bokk yi mboolem bokk yi di bokki taalibe yi yi di bokki taalibe wax ji eh, bu jógee ci ñooñu ci ci ñooñu la jëm jëm na ci mboolem bokki bokki yoon wi mboolem bokki taalibe yi mboolem murid yi dongo yi wax ji ci noonu ñooñu ñun noonu noo ko bokk waaw ji nag mooy di leen yëgal ne eh, waxtu wu ne ñe noo ngi ci waxtu wu ne noo ci liggéey bi tey tey tey dégloo loolu war a liggéey eh, bi lii nekk ci bii bi lii bi mu desee noppi nag mel ne am na loo xam ne eh, fitnaal na ma daal na ma ab diir ndax xam naa ne am na lu ma yëg am na lu ma lu ma war a def te xaw ma ko lu mu loolu nag ci diir bu gàtt ci laa daal sama xel daal dina yar ci jumaa ji nga xam nga xam ne ki fi nekk suñu xel du ci jóg mukk suñu dara dara dara du jóg ci moom waaw mu ne ci biir jumaa ji ma bëgg nag nu jógaat ni mu jóge woon ci lii rek ak nan daa jóge nu jógaat nag beneen jóg jóg goo xam ne dana dana dana daal suñu xel ci ne dana am li mu bëgg loolu mooy posté bi rek ak yitte ji jëf ji doon ñëw euh, jamaa ji ki fi nekk si biir dafa war a tax suñu xel du ci jóg mukk moom ak lu xëy mën a xew rek danoo war donte dañuy xëy sax di xëy di wër jumaa ji di xëy di xëy di ko wër ngir fat ngir sàmm ko ngir bëgg bëgg yéen am yéene sàmm ko rek ak ñoŋal ko loolu dafa ko doon jar gannaaw loolu itam ñu tabax taf tabax gi tabax yu tabax gi ay yëf ay ay matériel rek la dafa mat di nemmi ko fa tabarakallaahu ñi ñu jiitu gaa yu baax yi nu jiitu di jàmbaar di mat taxawaay lu ma def def nañ ko ba ci suñu jataay bii jumaa jaa ngi nii léegi nga rafet lool sëkk tabarkalla lu ma def def nañ ko waaye nag ni ma ko waxee rek duñ duñ toog loxee neen waru doo toog loxe neen te wax du ne bul seetee dëgg-dëgg dana am dana am amu liggéey waaw kon jumaa ji moom bi sama xel demee nag sa li li li li umoon sama bopp te man ma defe woon ne daal man cate naa dem dem na ba noppi tey jekk naa itam waaye loolu lëjël ma ci sama bopp ak sama xel man di ko xalaat ba sama xel ne yar rek ci lii jëmm ji tabax gi li wër tabax gi te muy te muy te muy loo xam ne nag li wér tabax yi képp dafa jar jóg ba nga xam ne moom moom moom lépp moom lépp lépp lépp lépp lépp nëx-nëx bi yëpp nëx-nëxal yi yëpp mi ngi ci mi ngi ci ndax mi ngi mi ngi mbënd bi kon yett yooyu la moo boole sama bopp mane ne ah lii kenn man war naa ko yëgle samay bokk samay bokk samay bokki taalibe moo tax nag ma ne booba ginnaaw bi lii dale nañ jógaat na ñëpp ñëpp ñëpp xam ne jógaat nañu jëm ci wéréel li wér jumaa ji wéréel ko ba mu wér bu fan ko ne daan xawma noon a karo itam liggéey ko ba ba noppi nu karo ko sax def ko buñ ceen buñ buñ ca noppee nag jëm ci tabax gi seet ko bu baax a baax a baax a baax a baax lu ci lu ci lu ci lu ci lu ci lu ci lenn lenn luñ war a demaat defa defaat demaat dellu delluwaat ci loola ñu def ko maanaam ñu xool ko ñu xool ko ci ci biir ndax ndax ndax ndax ndax ndax ciment fer rek la ciment rek beñ rek la ñu seetaat ko ba xam loolu am na ay sikk sikk wala amul sikk lu ci boo amee sikk ñu defal ko waaw seet kaw gi moom itam lu ca lu ca mat lu ca mat a jekkalaat defaraat ñu defaraat lu ca mat a rafetaat ñu rafetalaat ba lépp nepp moo noppi nu nekk nu nu nu nu nekk ca li war a nekk nag waaw sax dakk ci jaamu yàlla man ni ma koy waxee nag sama wax daanu gat mooy jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi ci dun léppi lu baax jaamu ko man noonu laa ko gisee man noonu laa ko gisee hmm. nu daal di delluwaat na bu noppee delluwaat ci loolu sax sa dàkk nag tey dégloo tey xool kon nag bokk yi bokki taalibe yi ñe seeni waajur yu baax ñi jëkk ànd ak ñoom ñi jëkk ànd ak ku baax kii teg baax yëmul fenn ñooñu gannaaw ñi ñuy tudd tudd sëriñ sëñ Tuubaa nañu yëg loolu nañu yëg ne noo sëñ bi nañ boobu liggéey c'est suñu kenn lu ci waaye nag na ko def lu ci waaye man nag na ko def di ko tegal yëgal bokk bokk jullit yëpp bokk julli yëpp yëgalun ko lul yëgal yëgal leen ne noonu dañ noo ngi faf sax dàkk ci fas yéene sax dàkk ci liggéeyal liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci lislaam loolu ci jiitu noo ngi koy liggéeyal fas yéene ko liggéeyal ci lépp waaye dañ ko waaye li ci jiitu noonu di fas sax dàkk ci liggéeyal ko ci di ko liggéeyal ci lislaam boole ko ci liñ koy liggéeyal yeneen yeneen yin koy liggéeyal waaw kon nag noonu rek la demee nun daal incha allahu foofu la nekk loolu ci loolu lañ bëgg a nekk noo ngi ci xalaat ji ak na nuñ koy mën a yoon war nañ mën a aw ba mu ba loolu am bu buñ ko gisee ba aw ba gis yoon wa nu daal di daal di daal di sax daal daal daal daal ta jóg ci yoon wa ànd noo mu aw ci yoon wa na mu na mu gën a gaawe na mu gën a sottee na mu gën a rafete na mu gën a mate waaw loolu donc kon na ko na ko na ko ñëpp dégg dégg jubluwuma ci dara ku na ko na ko ñëpp dégg yeesal seen i pësteef yeesal seen i pësteef yokk seen i itte gën a rafetal seen i xel te jóg nag rek fedd suñu laxasaay ci li jiitu lépp nag nañu gën a jiital yeesal sunu jaayante ak sëriñ bi dayman bu bëggoon ma wax waaye man dama mënta wax waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke waaw kon nag dañ ñaan rek loolu la ñaan rek baaxul sëriñ bi gërëm dara jàpp non bu noyyi moom dina ci gën a gàtt bi tawfeex sëñ bi rek mooy suñu moo moo moo lépp dig defar bu baax a baax a sàmm leen sàmm ñëpp aar leen ñaan ñaan tëbb leen a wér waaw tëbb fan yi ba mu gën a gudd lool ndax ñu gën a mën a liggéey ndax ñu gën a mën a jeex ndax ñu gën a lu ëpp jeexiti jeexiti liggéey sëñ bi ñu bàyyi mu ñu fi nekk di ko dolli muy muy wéy di wéy ba bis benn yàlla na ko suñu